والقلم وما يسطرون man la Serigne Sam eh, ci liggéey Yaatal Mbindum Alxuraanul Kariim bu concours bi en langue waaw ci tënk rek maanaam ndaje mi ñu tey fii tey dañ nekkoon ci demi-finale concours bi mooy suñu ñeenteelu ndaje ci fii ginnaaw demi-finale bi tey jii lañ doon def finale bi dajale woon ñaar candidat yi nga xamante ne bii ñoom ñoo def finale tey ñu ne woon fukki góor ak juróom ak juróomi jigéen tey daje nañ fi defal ay question ñu may leen diiru ñetti waxtu ñu toog ñëpp réellement jàll na ci jàmm mel na mu war a mel xëy na la ci suñu kanam rek mooy préparé euh, correction yi mu war a nekk le début incha waaw lim bi tolloon nañ maanaam daal apoon nañ juróom benn téeméer cent yu topp yu bokkoon ci concours mi matoon nañ ko 680 euh, candidats lañ doon au niveau national euh, bañ demee premier tour yi nag société bi dafa jël ñeent ku ñi nga xam ñu ci gën jàmbaare ñoom la tànn. yóbbu leen surveiller leen contrôler leen fii ñu toog ñu bind biñ bindee itam motaan naa ci ñaar ku yi gën a jàmbaare dajalewaat leen fii tey ñu bindaat incha allah biñ bindee tey jii itam danañ dajewaat euh, le day bii di ñëw pour toppaat ko tànn nag lauréat yi nga xam ne ñooy ñooy lauréat deux mille vingt-trois incha allah ñett ñu ko ñi nga xam ñoo ci gën a jàmbaare ci bind ci au ci Sénégal gépp incha allah waaw xanaa rek moom li ci suñu kanam rek mooy mooy mooy mooy cérémonie bi moo ne ci suñu kanam préparé kii bi ci mois de avril incha allah xëy nañu ci ñëw danañ ci ñëw bu baax nañ ko daan def at mi def nañ ko def ñu xam ne concours la concours la boo xamante ne bi at mu jot dañuy koy gën a jëmale kanam ci wàllu gën a fonk liggéey bi ci wàllu gën ko teg ci yoon ci wàllu gën ko jekkal ci wàllu saa yu ne lu ne dañuy évaluer euh, critique waxtaan bu baax waxtaan bu sérieux boo xamante ni bi lu mu laaj dañ ko ciy def buñ paree lu mu laaj ci joyante bi def ko ni daal la ñuy liggéey def ba pare léegi at mu jot liggéey bi day gën a tege ci yoon loolu nañ ko moo tax بنعمة ربك بمجنون